ñu ngay jaajëfal kon euh, di jaajëfal ñi nga xam ni tamit ñoo ñuy gunge ci jataay bi euh, ta nga toog nag ma mel kurakaaju ni Baye Mbaye Ngom Baye Mbaye Ngom di xalifa Ngomeen euh, mu ngi nii toog ci suba ba léegi ma àggale ci suba ba léegi ma àggale ma àggale ba pare wax ci suba ba léegi mu ngi fi toog ànd ak njaboot yi waaye li tax ma taxaw ci moom mooy ñëpp xam nañ tàkkusaanu maam Ahmadou Bamba Niang bu gàmmu jotee bu gàmmu jotee fii la njaboot gi di jóge jiital xalifa bi dem ngomeen yendoo ak moom mu boole ay déemam ak ay daqaaram ànd ak njabootam mu nekk loo xam ni daaw bi ma demee reportage ngomeen ci suuru gàmm dama ne ah ndeke gàmmu Canaba dem na ba Ngomeen man loolu laa wax kon gàmmu gi dafay yaatu ci tund wi yëpp ba Ngomeen boo demee Ngomeen Ngomeen day fees dell ñu ngi koy sant di ko gërëm loolu nag ci Baye omor mee la jóge ak waa Ngomeen yëpp macha allah ñu ngi leen di jaajëfal monsieur le président Abdou Ñing jël na ay teraanga yu bari yóbbu ko ci Baye sëriñ Omar Ñang xam nañu relation ñi ngeen ndax euh, ca Baye. Baye Mour Ndiaye ñing wàcc ci Baye Kang ak Baye Omar diggante Baye Kang ak Baye Omar xam nañ ko waaye loolu tamit nga fësal moo tax dangay ñëw teew ànd ak sa njaboot waaye jël teraanga ju yaatu ñëw andil ko Baye Omar Baye Omar nee na sant na la gërëm na la nee na yàlla yàlla gën laa taxaw ci barke yonent bi euh, Serigne Baye Mortala Ñang le pacificateur loolu laa koy wooyee pacificateur mooy koo xam ne ndoxam la yore di fay di seddal ba mu sedd guy ci famille bi mu ngi nii toog ñëpp xam nañ digganteem ak Baye Omar Niang mii bëgg na fu mu taxaw rek Baye Omar am fa ndam Baye Omar nee mu ngi lay jaajëfal baax di la sant di la gërëm noonu mu la sante noonu la sante Baye Bamba Niang di xalifa Baye imaam Mor Niang di sant tamit njabootu Baye mbay Niang ci kër Ibra Fall di sant tamit Serigne Alpha Cissé mu suñu yaay soxna Anta Jama Niang mu ngi nii toog ci kaw ànd ak Kéba Cissé rakam ak njabootu waa Cissé yëpp macha allah kaddu gi mu ngi jëm ci le président dayre njabootu maam Ahmadou Bamba Dieng muy Serigne El mbay Mbaye moo war a yëkkati kaddu gi su daaneelee rek ñu jël kàddu gi jox ko porte parole di xalif euh, bu ko defee ñu yëkkati seen kàddu Baye Omar tontu bu ko defee ñu ñaanal euh, mbooloo mi ñu delluwaat ci kër ga nag. bu ko defee waajal guddi gi maam mbay Penn ñu ngi koy rendre hommage euh, doomam sëñ mbay Penn ci suba bokkoon rek ñi doon taxawu kaamil yi euh, Mame Baara Guèye Baye Baara su ma juumul ñëpp ñëpp xam nañ ko ci canaba ci kanamu Baye Bamba Ñang moo nekkoon sirène ba moo daan jiitu nga xam ne Mame Bamba ngi ñëw maam Malick Ngom moom tamit njabootam ñëw nañ fi macha allah andi teraanga ju yaatu waa Pastef euh, monsieur Fallou Faye coalition Diomaye président 2024 mu ngi ci jataay bi ak oustaz Ismaïla euh, bu Pire moom moo représenté waa Pire ñoom ñëpp ñu fi maanaam njaboot geeg taalibe yeeg politique sa yeeg ñëpp ñëw nañ ci gàmmu Ahmadou Bamba Niang kaddu gi Cheikh Madi ñu ngi ñëw na ñu jox kàddu gi El Hadj Mbaye mu yëkkati kàddu gi. bismillahi rahmani rahim wa bihi nastain wasalaatu wasalaamu ala alxaqi almutalsam wa sirri almutalsam wa nuuri almutalsam saaxibi alxaqi ayni alxaqi talaati alxaq وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضا الله الخالد عن الصحابة أجمعين mbokki jullit yi ñi fi dëkk ak ñi fi dikk ñépp ñi ngi leen di boole benn baat boo xam ni baat bu sakkan la ni ko ustaad Haari di waxe baat la boo xam ni waa aljanna moom la ñuy waxati ci seen biir taxiyatuhum yawma yalqawnahu salaam baat la boo xam ni du làmmañ moo koy wax waaye da koy traduire xool moo koy wax mooy baatu assalaamu aleykum wa wa barakaatu moom de xam naa nuyoo yi ak ziyaar yi dëgg-dëgg mën nañu doy loo ñu fi njëkk jaar ca imam ma dikke mujj ci ñoo ku si ñëw rek nuyoo nga ziyaar nga te damay wax ni wallahi wóor na ma ni ñi may dégg ñëpp su ma tokkoon mbooloo mi naan diw lay nuyu diw lay nuyu ba mbooloo mi daj ma am kenn ku ma bàyyi ñëpp a may jëpp waaye moo fi woon ñépp daan di bàyyi Omar maa ngi lay nuyu di la ziyaara yam fa ñépp ay kontaan dëgg la wala du dëgg waaye kan naa yemale foofu nuyoo ak ziyaara jël nuyoo ak ziyaara ko jox ko bàyyi moom mu séddale ko ñépp ku nekk jot sawar xam nga suñu maam Cheikh Ahmad Bamba nag dafa bokk ci ñi yàlla wax minal mu'minina rijaalun sadaqu ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا maam Bamba ci ñooñu la bokk moo tax man dama jàpp ni suñu taxawee fii di ko fàttaliku dëgg-dëgg mënul nekk fàttaliku boo xam ni dañuy defar tànt bu rafet lool mënul nekk fàttaliku boo xam ni dañuy sol suñuy gees neer yi rafet lekk suñuy ginaar naan suñu soow daje sant gërëm ñibbi ba déwén déedéet kooku du maam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ndax lañ daan waxal yonent bi sañ naa ko koo waxal bu gaa yi daan tagg yonent bi ca bëgguñu mu gudd dañ naan fii kulli xayrin jumlatan balagal mada mu jeex tag fii kulli xayrin jumlatan balaxal ma daa boo doon jikko ju rafet xamoo ko ngay fekk ak jikko bu mu mën di doon min kulli wasfin xamidin xaada afala tafdil boo leen jikko ju rafet jooju réeree waaxul nag nga dem gëstu siira maam Cheikh Ahmadou Bamba boo ko gisee di ngay daj jikko ju rafet jëla réeroo fi kulli xayrin jumlatan qad balaxal ma daa kon nag kàddu bu gàtt ci li Maam Bamba doon représente Imam Madické dafa ñëw waxal ñu ci Abou Bakar Siddiq bi mu nekkee xalifa kàddu gi mu yëkkati mais day toll ci jamono boo xam ni comme ni ma ko waxee rek noonu la demee man damay ñëw ci lu ñuy wax exactement ba ñu comprendre mission Maam Bamba ci kaw suuf bu ñu ko bëggee xam dañuy dem ci imam Jaafar Sadiq imam Jaafar Sadiq dafa xëy rek génn màkk ànd ak Ousmane ibn ànd ak Roqiya doomu yonent bi ànd ak juróom-ñett fukki góor ak ñett ak juróom euh, fukki jigéen ak juróom-ñett ñu dem làquti ci Najaasi waa màkk yónnee délégation ne dañ leen di jëli ba ñu ñëwee complot seen complot pour récupérer leen buur ba jóg ni leen waa lu ñu def ba ngeen bëgg leen a rey waaw màkka nii ñii dañoo ñëw jaxase suñu dëkk ànd ak ku ñu wax Muhammad lu waay wax mu weddi ñu ne nag nañu ñëw rey leen balaa ñoo yàq réew mi buur bi daal ne kilifa du gaawt mbokk yi kilifa du gaaw a jël décision Najaasi dafa gestu daal ne hey eh, yéen ñii ni yéen ñëw fii ci turu Muhammad dama bëgg ngeen wax ma yéenay ñaan imaam jaafar as-saadiq radiyallahu anhu jóg taxaw gis nga wax imaam jaafar li muy gàtt gàtt moo résumé diine moo résumé exactement mission yonent bi sallallahu alayhi wasallam imaam jaafar ni kunna qawman ahla jahiliya naabudul asnaam ñu ko gis nga buur ñun ay ceddo lañu woon ay ceddo lañu woon mënu ko gis nga buur ñun dañ daan fekk ab xeer bu taxaw rek ñu yàtt ko di ko jàmm munu ko gis nga buur ñun suñu dëkkandoo lu lu nekk lu ñu yëkkati suñu dëkkandoo lañ ko daan teg munu ko gis nga buur ñun mbokk xamuñu ci woon lu dul wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw ak dagg ko munu ko gis nga buur nan sàngara suñu mbir la woon carte xaalis suñu mbir la woon ku ëpp sa morom doole dóor suñu mbir la woon ci loolu rek lañ nekkoon xamuñu leneen lu dul lool ma benn bis yàlla dimbali ñu andil ñu sayyiduna Muhammad naarifu nasabahu bi mu ñëwee du étranger ci ñun ndax dañ koo xam ci ñun la juddoo màggee ci ñun waaye mosuñu koo dégg mu wax lu dul dëgg naarifu sidqahu naarifu afaafahu xam nañ ni kenn mosu koo joxoñ baaraamu tuuma lu mu wax dëgg la mu ñëw ñu ne eh. kaay leen ma ànd ak yéen ndax da nga bëgg ñu topp la muy déedéet soxla ma ngeen defal ma dara li naabudu allah wa nuwaxidahu dama bëgg rek ñu ànd man ak yéen wéetal yàlla jaamu yàlla wax baatu laa ilaha illa allah ku ko wax ëllëg yowmal qiyaama maa lay garanti dugal la aljanna bëggatumaa gis kuy wax lu dul dëgg ci penc mi bëggatumaa gis kuy noggutu ko ëpp doole ci biir penc mi bëggatumaa gis koo xam ni xale bu góor la muy ànd ak xale bu jigéen bu ko léwul ci biir penc bi bëggatuma gis kuy jël alal di ca carte xaalis ci biir penc mi bëggatuma gis kuy lor sa dëkkandoo bëggatuma gis kuy dog mbokk bëggatuma gis kuy naan sàngara buur lii lañu Seydina Muhammad andi ndax war nañ koo topp wala war nañu koo topp ajaasi ni li nga ma wax moom la juganteen yàlla Isaa benn la kii ne ku ñu war a topp la ndax ko topp mu defar penc mi maam Bamba ñëpp ku ko topp mu defar penc mi loolu moo ne condition maam Bamba ñëpp moo tax yàlla ñu ko yàlla fekk Baye Omar fi may jeexale samay kàddu damay ñëw sët yi ñoo ma yóbbante sëti maam Bamba yëpp soppay maam Bamba dañ ni ma Oustaz El Hadj comme yaay président daayira dañ la yóbbante ci Baye Omar man ne lu ngeen may yóbbante ci Baye Omar ñu ne dëgg-dëgg xool nañ ko ci biir xool ko ci biti xam ni mooy maam Bamba nee na ñu natt ko gis ni Maam Bamba gërëm na ko firnde baa ngi ñu natt ko gis ni Serigne Madické Niang gërëm na ko li koy firndeel mooy doom ji ko tuddee léegi mu am juróom-benn fukki ñu natt ko gis ni Baye Modou Marème gërëm na ko tuddee na ko doom ju am ñeent fukki ñu natt ko gis ni Baye Ousseynou gërëm na ko tuddee na ko doom ji organisation gàmmu Maam ñu natt ko gis ni Baye Bakary gërëm na ko fanweeri at ak ñaar mu ni sama kàddu mooy kàddu Serigne Omar lu mu wax moom laa mu wax waxuma ko sëti ni ma nag loolu comme xool nañ ko mu dajee ci jëmm ji di Baye Omar soo jàkkaarloo moom nee ko Baye mun la naam nga ne ko shukran merci jërëjëf jaaraama thank you ndeysaan tabarakallahu euh, fi may daaneele damay wax ni Baye Omar sët yëpp kontaan na nangul ñu maam Bamba damay damay jotti doom ma ni waaye lu tax nangu leen maam Bamba ñu valeur yi mu doon incarné la ci gënoon a rëy mooy muñ bu maam Bamba muñoo muñ goo xam ni moom la Serigne Alioune Gueye keroog ba mu gisee ñu jël Seydil Hadj Malick teg ko ci jaag mu gis ñeenti nit jàppoo ko di dem Seydil Alioune Gueye xool xool xool mënu koo muñ mu ni fa waa ajaban hamdul axillaai bi nahshihi wa mahmuduhu sabran bi daadan bi jalmadi Seydil Alioune Gueye ni maa yéem ñeenti nit ñoo jàpp Seydil Hadj Malick ñeenti nit teg ko ci benn jaagu dénk ca man ma xam ni Maodo mii ñu teg ci daagu dénk bi dënnam bi la ca nekk ci moo gën a rëy doj watal gox kon bu damul jaag bi màcc na tax mooy bu muñ googu moo nekkoon ci maam Bamba Diagne wallaahi ku tudd maam Bamba Diagne te tuddoon muñ xamoo kan mooy maam Bamba Diagne waaye ñun nag ñu maam Bamba Diagne ndax muñ googu lañ ko gis ci Baye Omar waaye ñu ne ndax muñ Baye Madické xam bàyyi ma dikkee personnalité bi ñu doon incarné muy sultatul jala ak sultatul ajiz boo ko gisee da ngay tiit ngir personnalité boo jaxasoo moom du too ko bëgg a bàyyi ngir jikko ji rafet waaye waaye namatuñ ko ndax loolu la ñu gis ci Baye Omar waaye ñun nëbbatuñu Baye Modou Marème ndax Baye Modou Marème ku bësal mataanu xonk nga ni xaaral ma dem gis kilifa ga lan nga yaakaar mooy poosam moo gënoon a gaaw ngelaw ci joxe ku tabe doon Baye Modou Marème ñan wallahi tab googu wax na ko sànq sëñ Mor Sikki wax na ko tab googu man dama yéen sax ci bàyyi wala tama walaay laa dañu ne wax yëpp mën nañ ko séede lu jaar ci loxoom balaa moo tege ci loxoom séddale ko jaam yàlla rek moo féete borom subhanahu wa taala waaye kon luñ doon ci bàyyi ma rek nammatuñ ko nii ma ne nammatuñu nag baatin suñu bàyyi bakkar yi nammatuñu ko bàyyi bakkar ku nekk xam na ni moom pour mu yar la soxlawul wax ak yow wax ju bëri da ngay toog ak moom rek yàlla wallahi alazim bi himmatin la aw bi xaalin xaaja tarbiyatan niamal murabbi muridul xaq yardan wallahi boo toogee bàyyi Bakary boo ko jigéen doo sañ a yaradi ko bu la xoolee ak lewet gi waxtaan ak yow nemm ma la jël loxo yi te di ko sa loxo boo fa jugee sa pas-pas yokk sa ngor yokk sa diine yokk loolu yëpp na mooy baatinun lam waafiq min shariatina fattuhu billahi laa bi nooni kal fàttali ma ni baatin boobu tey nammatuñ ko ndax bu ñu xoole suñu baaraam war a xeex ko ci moom waaye Baye Xuseynu ñëpp xam nañu benn particulier la woon mooy xakum la woon il est un charge Baye Xuseynu dañoo ñëw benn la lay ba déwén حكيما يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا kenn mëtul Baye Ousseynou ndax xikma ba nekkoon ci moom bu ñuy gëstoo Baye Omar gis ko ci moom ma jeexale bàyyi Jama bu gàmmu jana ba ma saan a jot sëñ Mor Kodd moo daan taxaw yëkkati micro bi bàyyi Jama di firi min yu ba fajar lu mu wax Baye Jama firi ko doomu Mam Bamba ca fasaaxa ba ca xam-xam ba ma ne nammatuñ ko ndax Baye Omar mi ngi fi kon nag min kulli wasfin حميد حاد أفعال تفضيل رجاء البراء يوم مزدهم duñ la wax mukk baay baay duñ la wax mukk la nit yàlla waxoon Moussa duñ la ko wax de izhab wa rabbika faqaatila inna haahuna qaa'idun déedéet ñëpp ne la dañu dajale suñu buum ñëw ba ci sa kanam ni la izhab wa rabbuka faqaatila inna maakum muqaatiluun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mu Bamba sigil na lislaam suñu maam bama amal waaw waaw waayu yàlla la ku mu jaral la ko yee waayu yàlla la maam mu Bamba sigil na ay waay ku sopp soppe maam Bamba jëm defal ni ñu màggal ko خير الورى يا من به عنا العذاب يمول يا رسول الله يا أمة الهدي بيديكم فالخضر ومقام جليل أيوة أيوة مريم في يقتان دوير waatantu bi ko sopp muhammadu rasulillahi salla alayka allahu ya xayra alwara ya man bihi an aladabu yamulu ya ummatan bi yadikum fal xadran wa maqamu jalilu muhammad rasulillahi ku sopp mam Ahmadou Bamba ñu dafa lii sa ñaari loxo sural masiixu bii wasrifa Adamu wa sama bii Moussa wa saada Xalilu ñëpp def ni ñu màggal Seydina Mohamed ay waay fal kulu melu تقتضي للوعي يوم الجزاء ذي الوقوف طويل قل كيف يا ربنا فقل يقول fa ya rabbana jox na ñëpp rendez-vous ci tànk fa ya rabbana ñun ñëpp yàlla nañ fekke deen wax na amin Baye Omar yàlla nañ fi yàgg ci wér fa ya rabbana surtout tafsir moor awa ñi ngi mooy wayal maamam fa ya rabbana fi ardihi wa samaayi amidna ala tasdiqina fi sifaayi fa inna wadul aswaaxi yaxya bidaayi يشق علينا العي شطور لقائي قل كيس الدين لم يغمر فلا كانت دنيا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله moo jox lii jabootu Cheikh Amadou Bamba ñeng waa soxna Awa Ndiaye mu maam Seynou Ndiaye ca kër ma fay moo joxe lii dafa naa mi ngi ci tàdd bi te daa taamu woon Pape Abdoulaye bi wala Modou Mansour joxeel ko ko loolu nag moo xam li mu ciy jublu waaw. waaye dëkk bii di kër Ndiaga am na fi kër waaye tabaxagu ko waaye mi ngi ci Serigne Mbaye ak Baye Isaka laaj ko daaw Baye Isaka mooy imaamu raadu te mooy rakkam mu ni képp koo xamante ni yaa ngi ci tànt bi la ko ñu def ci. cërëb bàyyi alxaaji Omar Ñaŋ gi képp ku si joxe sab dërëm yal na yàlla fayal kilifa gi ñëw na bàyyi Omar mooy sëñ Isxaqa sëriñ Mbay Soxna Ñaŋ ñëw na ñu ne nañ ñépp ñëw joxe ci seen wërsëg jigéen ñi yéen yéen man fépp ñëw leen bàyyi sëriñ Assane moo joxe cinq bi nañ continuer rek bu ko defee ñu continuer programme jox kàddu yi kilifa yi ndax toogaay yaatu na Euh, waaye ñu ngi dalal tamit délégation njabootu Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck Serigne euh, Gora Seck ak Serigne Tante bi ànd ak Baye Serigne Jafa Makhtar ci suba Baye Alaaji Talla Gueye dañuy jiitaloon mu ñëw yendu fi ba ngoot ak njaboot bi delluwaat ñoom tamit ñoom noonu ñoom it macha allah andaale seen i teraanga ñu ngi leen di jaajëfal baax yal na fay leen ci barke yonent bi kàddu gi muy jëm ci ñu euh, kàddu xalifa bi ñu jëlee rek. sopp Seydina Muhammad na def ni lu màggal yonent Yàlla Muhammad. ribul ada kendian jalan Muhammad mubiiduhum kañ ak nan bi sayfi id abawal hudaa أخذهم نور يدل ويكلو كم دون تعالى محمد سري آدس رواجي جزاء مطيعه حرير وجنة به الله الورى فهو منة تروي السدى أو سلة تتفير من يقنيني تيمتل محمد أروح على ذكر النبي واحتدي وارجو به في الحشر تكريم te ji kenn du sayyiduna muhammad sanaytu ila madhi nabi muhammada عنان لسان بالمحبة ينفسه كن ينتي على محمد سوي وي سيدنا محمد فاصل عليه ويقوم بشقاء ida sammama al abdu kenn du yonent Yàlla Muhammad jara imana tubha bi jaahi muhammada yonent bi ida sufi al mahbub bu jaazal mubahrajo sayyiduna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 walhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi nuyu bokk yëpp di leen ziyaara di ziyaar xalifa bi di ziyaar invité am yëpp di ziyaar ki fi teewal sëriñ bi di porte parole ñu teg nuyoo boobu ci loxo sëriñ Jibrilu Seck bu Cheikh Ibrahim di nuyu présidente soxna Aïda Niang suñu njaboot la ngeen teg ko ci sunu loxo mu nekk ci biir nekk seen njàmme waaye cant gañ ko daan sant fii rek la ñuy beesal yal na yàlla jàppale ko dimbali ko asalaamaaleykum wa rahmatullah Baye Serigne Djibril Seck nee na mu ngi yëgal mbooloom mi yëpp ni leen gàmmu Serigne Ibrahima Seck jàpp nañ ko samedi le 11 mai 2024 nee na mu ngi koy yëgal ñëpp euh, ci ndigalal xalifa Baye Cheikh Ahmed Tidiane jaarale ko Serigne Gora Seck ak ay rakkam gàmmu Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck jàpp nañ ko le première juin samedi le 1er juin 2024. foofu ci canaba di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm sëriñ euh, délégation sëriñ Moustapha Sy Jamil ak si nañu léegi mu ngi noonu toog ci ginnaaw bàyyi sëriñ Assane Niang euh, ñu ngi leen di wàcc dox seen wàccuwaay sëriñ Bamba Ñing ak sëriñ Assane Ñing muy waa Bulfa yëpp délégation waa Bulfa teew nañ ci tànt bi gunge ñu comme nañ daan gunge àndandoo ko démb ak barki démb Cheikh Mad Ñing ak daayira gàdd ngay ñoom tamit macha allah teew nañ ci jataay bi di ju gunge waaye kilifa yi am message buñ ma jox mu jëm ci soxna ndey jaw mii soxna nday jaw kilifa yi jóge ci Baye Serigne Omar Niang nee nañ sàkku nañu ni nga duggee ci tànt bi saf na leen mais bu guddee tamit nga defaat noonu ak délégation bu fort ñëw fekk si Pape dalay Mboup ànd ak ñoom ci guddi gi ndax Pape nii ma ko gisee nii tey bëggul dara sedd kon loolu tamit information bu war a la di jégalu yëpp kon Cheikh Sëñ Cheikh kaddu na. waa cekkeen yi kilifa yi. yéenay gor. yéenay jullit. yéen a xam ni ngeen di doxale maam bambañang mi moom fii wala mi moom tant bi keroog ba mu juddoo ruwam maam amari naag sekk rek ko attan sëriñ Aada yaa ngi dégg ana Baye Diop ana sëriñ As ana sëriñ ma dikke mu seex Jibriilu ana Baye Alfa Mamadou mu sëriñ ma dikke ana sëriñ Alpha bu bàyyi taala bi tant maam Bamba Ñang maam Ahmad Bamba Ñang mani ruuxam mani ruuxam ak maqaamam maam Amari Ndaak Sekk borom cene ba ko attan loo tax bi mu demee ba mbiram yëngu wàllu yi bëri nañ fi waaye cene ba la jëm foofa laay commencé wax ji kaddu gii ñu yëkkati nag kaddu Baay Seex cene ba la ñun amuñu kaddu amuñu ndigal amuñu ndigal amuñu xam-xam amuñu xam-xam. jotaay bii ñu toog ñu toog. jotaayu Baye Cheikh Thiénaba jotaayu Baye Cheikh Thiénaba la mu doon ne ko ci maamam ay magam àndoon ko am moom ba mu rafet Baye Jibi Baye Serigne Thiénaba ne kàddoom teg na ko ci sa loxo nga wàcce ko ci suñu jëm ak sarak yu tedd yi ngeen seq yëf yi yëf yaa ngi rafet yëf yaa ngi baax dafa am mag mu baax dani ku bàyyi kër jëm ci kër kër ga nga jóge doo fi wàññi dara ga nga jëm doo fa yokk dara nit day xam cëram fonk cëram téye cëram yonent bi sax yàlla da koo joxoñ ni ko yaay xan nabiyu mu ne haa mu ne ko xasbuka allahu wa man ittabaaka min almuminina yow yonent bi li ma la jox yem ci mooy sa ko am cër da ngay gëmm ba doo gis cërub jàmbur ndax soo gëmmul di nga gis cërub jàmbur ñu ko di xoy-xoy nga foog ni moo la gën ca ca yëf yaa ngi fii maam Amari bi mu duggee ci laa ilaaha illallah jël dund ak deretam pàkk maama mari ndaat ba pàkk yépp laa wax li fi andi lii amul ci benn pàkk ndax dereta ko fi andi ak laa ilaha illallah waaye dëgg la waay dëkk bii ñu dëkk waay dëkk bii ñu toog di dëkku maam njaga nit ñu baax ñoo fi dëkk am fi cër jóge fi yóbbu ay cër maam njaga ak maam Anta ñoo bokk ak bàyyi maam Anta jur maam Sadaga mu jur maam Birane Cissé maam Birane ni mu toll ci kër gi ak wilaya ak leer juddoo fii yaroo fii yóbbu calaba ak gusaas ñu ni fii la jóge fii am na lu fi ne mu meññi maam Sadaga mu meññ maam coon mu meññ maam makumba mbiri na gay gii ak béer ak aaneen fii la ñu jóge ñetti pàkk yooya ñu fii lañ jóge fii am na lu fi maam jama moo jur maam njaga maam jama soxna Mati Mbàkke moo ko jur soxna Mati Mbàkke Cerno Fëri Mati Mbàkke moo ko jur maam Maaram Balla maam Balla maam Tuuba kon fii am na lu fi ne laa wax Njaga meññi maam Góora Ganna ak maam Ngóone mi waral coow li maam góor a gànn meññi maam Samba Serigne Mor wax na ko Serigne Mor léegi maam Samba moom la maam Mamar Talla nome woon keesu tariixa bi su defee saw ñetti weer dem nga def nga ñetti weer def saalum ñetti weer toog ak maam Mamar Talla ñu seet li ñu am fépp fu tariixa bi amee problème ñu fatt bëtt yooyu ba ñëpp kontaan kon kër gi yàgg nañoo faj gàcca ci biir tariixa bi waa ku ko fi ba waa yow foo jëm maam Samba am fii doom papay Moodu Sikkim mii di waajuram Baay Moor Ñang Baye Mbay Baye Amadou Baar Baaxe waajuru Baye soxna mi waajuru soxna mi ñu seqoon ay tiraanga ci biir kër gi maam aka yaru woon aka baaxoon jël cëram ni ci lew toog waaye mbirum yàlla fu mu ñëwee waroo yàlla yàlla du war kenn mu toppoon ci nijaayam jël cëram ni ci lewu toog ci ba lépp baax waaye fii ñi fi gën ñi ngi fi li nekk fii maam njaga def ko fi ñu ko fi jële yóbbu ci ay barab li ñu fi ba moo ëpp fuuf yàlla dafa wax ci alquran ci sooratul laaraaf. aaya 58. aaya 58. ku fa dem fekk ko fa ku fa dem fekk ko fa. pas 158. ñoo niroo sax ñoo niroo sax. 58 58. pas 158. pas 158. wal baladu tayyibu. yaxruju nabaatuhu bi iznillahi. wallazi xabusa laa yaxruju ila nakidan kazalika yusarrifu al ayat li qawmin yaskuruuna. fii laa wax li fi ne. ma ni loola du fi jógee sëriñ Aada Baye Diop sëñ As lii ku ko fi ba sëriñ Gora bu Baye Cheikh Ahmad Tidiane ku fi bàyyi lii foo jëm wax leen ma fu jëm ma ni wax leen ma fu mu jëm maam Bamba nag maam Bamba nag nee yaram wi dafa lëbbët te te te te te jooytu na ko ba sonn. ca jooytu na ko ba sonn. mbaa waa kër Njaga Saar du ñu mer. mbaa waa kër Njaga Saar du ñu ma mere. ma ni ko déedéet. mu ne mbaa Sëriñ Omar du wax dara. ma ko déedéet. ma ni ko bàyyi rek ñu dem. bàyyi Jibrilu Sekk. mu woo bàyyi jibi ci suba ba mu ñëw. ma ni ko sama kàddu ak sama ndigal teg naa ko ci sa loxo. bàyyi jibi jërëjëf. maam Bamba nag maam Bamba nag numéro am sax dafa baax maam Bamba ñang maam ji 81 la Bamba ji 44 la ñang ji 21 soo ko boolee muy 148 148 mooy Mouhamadou Wahab ñeenti Wahab li mu xuus yonent bi am ko ci yonent bi du dañ ci jëmmam mukk ak ci njabootam ak ci ati bi waaw waaw ma ni maam Bamba laa wax 148 mooy numéro am mooy 92 nga génn ci 56 muy juróomi waxoob wala ñeenti waxoob 14 multiplié multiplié par 4 56 la lay jox 56 plus 92 moo lay jox 148. kon li mu xuus ci yonent bi ci maqaamaam yàlla may na ko ko ca loola du fi jóg dëgg la waay kan mooy maam Bamba kaana mutasawifan fi ibadatillahi suhdan wa tawaduan sëriñ la woon waaye yemul woon ci sëriñ rek da doon jaamu yàlla te ba jaamu yàlla feeñ ci moom mu dëdd àdduna ba ñëpp xam ko mu doyadil boppam ba xadra bi yëg ko wa aarifan bihi ku xamoon yàlla la waaye yàlla ñi muy xam yëpp mu ta allihan fiihi kanasaka wa taabada tillaahi dafa jëloon lépp xolam ak jëmmam jox yàlla kaana tayiban wa aqwaluhum tayyibatan wa afaaluhum tayyibatan wa tasarrufaatuhum tayyibatan moom jëmmam baaxoon na wax ji baax na jëf ji baaxoon na lim doon jëfandikoo baaxoon na ña ko doon jëfal baax nañu mooy njabootam gii toog cey waykat bi da koo way mu méngoog jëmmam sëriñ aada kaana taqiyan ñu ni yemul foofu aaliman yemul foofu sunniyan yemul foofu wa xaayifan li rabbihim mardiyan ustaas yaa ngi may dégg kaana aaliman taqiyan sunniyan wa xaayifan li rabbihim mardiyan وكان وقورا حسن الاخلاق مقتديا بسيد الاخلاق سباي ku yar woon ku amoon élégance la waaye élégance maam Ahmad Bamba yëpp da koo jëloon dellu ko ci jëmmi yonent bi ba soo ko xoolee gis jëmmi yonent bi ci moom gis mbiram ci moom waaye na soppee Ahmad Bamba loxo waay sëñ As sëñ As waykat ba dafa wax ni waykat ba dafa wax ni naa jaytu rabbi naa jaytu rabbi waqad raqa waqad raqa alfuaadu alfuaadu lahu naa jaytu naa jaytu rabbi rabbi waqad raqa waqad raqa alfuaadu alfuaadu lahu sëriñ Aada yaa ngi dégg. naa jaytu. naa jaytu. rabbi rabbi. waqad raqa waqad raqa. alfuaadu lahu ñu ne maam Bamba fa nga jëm ñu ne maam Bamba fa nga jëm. mu ni déedéet. mu ni déel naag sama borom mu ni déel naag sama borom. di déeg sama borom di déeg sama borom. di déeg sama borom di déeg sama borom. di déeg sama borom. ba sama xol ba sama xol. tooy xëpp tooy xëpp. ci mbalaanum yàlla ci mbalaanum yàlla. ak mbalaanum yonent bi. koy seen maam yéen waa kër Njaga kooku mooy seen maam fa tabaarakallahu nee li mu bàyyi fi dootu fi jóge xadara bi xadara bi bu maam amari ndaak bu maam amari ndaak ñun suñu diine ñun suñu diine min sifaati rabbaani yi la ñun waa Cenaba laa wax fii ñu toog fii ca maam Bamba yilif leen li ñu bëgg Cenaba dee Cenaba xam ni fi la pas-pas bi nekk man ñooña lay waxal ñun waa Cenaba min sifaati rabbaaniyiina min sifaati rabbaaniyiina waa canaba laa yabiixuuna diinahum bi dunyaahum ñun suñu diine duñ ko jaay ngir àdduna mukk du am waaw waaw waaye yéen xam ngeen ni yéen sëriñ siif toog fii fii kenn rek doyoon na fi yeneen kër yi noonu la ñuy def waaye yéen jomb ngeen loolu ku ci nekk rek wóllare gi nga am yaa ngi xool ni damaa war dañ maa war a yëbb kóllëre gi bàyyi joom mi am na fi kóllëre rus naa toog sëriñ aadaa ngi rus naa toog sëriñ aasa ngi rus naa toog njabootu sëriñ Madi Kee ngi rus na ñëw toog njabootu Baay Seex Ahmad Tijaan rus na ñoo toog Baay Jibee ngi rus naa toog Pape Mor Gueye rus naa toog waa Ciise ngi rus na ñoo toog ngir yàlla ak pas-pas bi ñu seq kër gi ñun waa Thiénaba du ñu jaay suñu diine laa yabi'uuna laa yabi'uuna diinahum bi dunyaahum muy benn ñun waa Cenaba laa yatasaawoon ñun duñu waxaale moom diina ji duñ ko waxaale ah, déedéet ndax diina amul njëkk soo ko waxee waxaale ko soo lëggee ñu weer la ci média yi say taalibe yàq ba yàq ah, liñ la wóoloo liñ la wóoloo nga ñàkk ko nga ñàkk ko lépp yàqu lépp day ànd daal di yàqu ñetteel bi ñetteel bi wala yatanaasaluuna wala yatanaasaluuna an xaqin an xaqin yaqtaqadu yaqtadaxulu yaqtadahu yaqtadahu duñu abonné mukk. nee duñu abonné. ñun waa Cenab. ñun waa Cenab. suñu àq suñu àq. ci ko fas ko. di ko bàyyi di ko bàyyi. ndax ndax àdduna. am mukk loola du am mukk. maam Bamba maam Bamba. loolu la xamoon mu bàyyee njabootam njabootam. ñaar ba pare ko waroon a yàq ba pare li ko waroon mu effacé leen. ma ne njabootu maam Bamba ma ne ñaar leen leen bàyyil. ñaar yooyu li ko waroon a seen maam ifaasa na ku yàq yaa yàq sa bopp. maa ngi nuyu premier xalifaam. maa ngi nuyu premier xalifaam. maam ma dikke. maam ma dikke. ak njabootam ak ak kafa mag. njabootu baay Moodu Marème samay xarit lañu sëriñ Bëkkëri ñoo dëkk samay xarit lañ sëriñ Bamba ngi day sama xarit baay Moodu day sama xarit Ibrahima lu ma liggéeylu moo ko liggéey ca duma ca laaj dara sant naa ko gërëm naa ko yéen njabootu baay Moodu Marème cene ba gépp gërëm nañ leen sëriñ Ibrahima Seck day dem Gosaas biñ demee ba Bambay biñ demee ba Bambay. oto yi rang oto yi rang. bàyyi Moodu Marème wàcc. ni ko addiye yoon wi man mii maa koy def. oto yëpp mu sol ci gaasuwaal. Bamba sa baay na ko yàlla xaral ja. ñu ngi nuyu njabootu maam Bëkkëri. kër gi nag baaxoon na waaye bi Baye Bakary ñëwee beesal na kër gi ba xol yëpp mën a jàkkaarloo kër gi ba ñëpp di sant Serigne Bamba yow ak sarak yëpp maa ngi leen di sant Baye Serigne baa ngi leen di nuy mi ngi leen di ziar yéen kontaan ci seen i taxawaay Bamba mi ku baax la ak rakam yëpp li leen waroon ci kër gi li fi seen bàyyi nekke bi mu fi jógee def ngeen lépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. njabootu Baye Ousseynou. Baye Ousseynou. dafa nekkoon ci suufu maam Bakari. waaye ñoo bokkoon mbir yi. am na lu ma ko téye loon. Baye Ousseynou ku baax la. mbokkam yi yéen a ko gën a xam. kon njabootam. ñi ngi leen di nuyu. di leen baa ngi lay nuyu. kër gi. fu diina yëngoo ci biir fu diina yëngoo ci biir Thiénaba. yaa ngi ci biir am sa melokaayu am sa melokaayu baa baay rek. nekk ci biir nekk ci biir. jëf jëf wax wax. salaam tey salaam bi yaru yaru tey xam ni kër gi xam ni kër gi. loolu yal na yàlla fay la. kontaan nañ ci yow bu baax. yal na yàlla yàlla taxawu la. sëñ Ousseynou. sëñ Ousseynou. Baye Assane. Baye Tëngéej borom Tëngéej. Baye lay nuyu. ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay ziyaara. ndolol sëriñ. ndolol sëriñ. ak ndolol kilifa ak ndolol kilifa. ci melokaan lay melokaan lay ne. ak ci comportement ak ci comportement. waaye du jàdd. jërëjëf jërëjëf. waaye sëriñ baa ngi waaye sëriñ baa ngi lay nuyu. mi ngi lay ziyaara mi ngi lay ziyaara. mi ngi kontaan mi ngi kontaan ci yow. Baye Mbaye soxna Baye Mbaye soxna mii. di borom dëkk bi tey di borom dëkk bi tey. moom ko ci ndey moom ko ci ndey. moom ko ci baay moom ko ci baay. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi am ci yow. ñu ngi am mbégte ci yow. ci say ci kër gi. ci sa pas-pas. yàlla ñu yàlla yàlla ñu la yàlla fayal. Sëriñ Bamba Sëriñ Bamba. jërëjëf ñan. sa baay ni mu moomee dëkk bi ni mu moomee woon dëkk bi warmaal dëkk bi warmaal dëkk ko fi nekkaloon wóolu leen wóolu leen fayal. Serigne Mor Sikkim Serigne Mor Sikkim. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant. ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm. Serigne Alpha Cissé Serigne Alpha Cissé. jërëjëf jërëjëf. sa sa yaay. sa yaay. fa tabarakallahu soxna Anta soxna Anta. maam Samba maam Samba ko jur. mu bokk mu bokk. ak mu bokk ak Baye Morña. mu bokk ak Baye Morña. Ndeye ak Baye Ndeye ak Baye. ngay jarbaat ci kër gi yàlla yàlla taxawul professeur Souleymane Dia professeur Souleymane Dia. suñu nijaay suñu nijaay. Serigne Omar ñu ngi lay seedeel ni. professeur mi professeur mi fonk na gàmmu gii di Kër Ndiaga Sarr. soññ na ma ci ay yoon soññ na ma ci ay yoon ndax seenub sët ndax seenub sët lay denc lay denc di bi kon professeur jërëjëf ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom ak juróom nga yoreel kër gi nga kër gi lu doy ne secrétariat bind ak maas bind ak maas ca dara mu sa yàq dara mu sa tajal yow sëriñ Thiénaba baa ngi lay nuyu mi ngi lay ziara sama nijaay sëriñ Mor sama nijaay sëriñ Mor Biram Diop jërëjëf jërëjëf yow mag nga fi nekk rek taxawu nga ko waaye gàmm gii nag sa taxawaay ci wetu Sëriñ Omar fa tabaarakallaahu lu munta dox nga doxal ko ko ba mu baax Sëriñ Mor jërëjëf waaye nag mbiri soxna Salaata jërëjëf ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm Sëriñ Abdou Ñing ci délégation Sëriñ bi ci la bokk bàyyi sëriñ bi woo ma ci suba ni ma soodee départ wool sëriñ Abdou kaay jël sama oto ma ni ko sa oto du ma ko jël bàyyi fi sa oto mu woo sëriñ Alpha Mbaye Talla xaar mii mu ni ma wax ma ban heure mu ànd ak sëriñ ma dikke sëriñ maa jooja ci délégation bi la bokk dañoo dem bay départ sëriñ bi am fu mu ko yónni mën naa am bala ñoo jeexal mu fekk ñu fii sëriñ Alpha jërëjëf kontaan nañu ci yow bu baax ni nga mel rek la sa baay meloon diine rek leen ñor jërë ngeen jëf sëriñ Madické jërëjëf ñi ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ci wetu baay sëriñ bi lu baay sëriñ bi yëkkati yaa ngi ca biir sëriñ Ibrahima Dieng jarbaatu sëriñ bi baay sëriñ baa ngi lay sant ki say taxawaay yi ci kër gi ak ci diine ji Serigne Mor Kott. Serigne Mor Kott. ñang ñang day sama xarit day sama xarit. bëgg ma lool fonk ma lool ñu xàmmee ko ci ko ci sama wetu nijaay Pape Mor Gueye. ñu ngi koy nuyu ñu koy nuyu. di ko ziyaara di ko ndokkeel Baye Jibi Baye Jibi. dafa am kaddu yu ma yónni. daa am kaddu yu ma yónni. dinañ ko dugal dinañ ko dugal léegi. fa tabaarakallaahu njabootu Baye Cheikh Ahmed Tidiane. njabootu Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck. ànd naa ak moom fii ba tey. ànd naa ak moom fii ba tey. ànd ak Baye Diop. ànd ak sëñ Baye Diop. ak sëñ Aada. ak sëñ Aada. ak sëñ Aas. ànd ak moom fii 5 heures. ànd ak moom fii 5 heures. ba génn jot. ba génn jot. mu ñëw toog fii. wax lim fi war a wax lépp. doonoon xaritu Baye Bëkkër. barki dem rek. ngeen gàmm gàmm gu rëy ñi ngi lay félicité ci taxawaay dañuy wax gàmm nag yaw rek laa gis nga yëkkati kàddu ni gàmm Kër Ndiaga Sarr bu leen ko fàtte ca gàmm ñu xam ni gàmm gi ñor na la kon Baye Alpha jërëjëf kontaan nañu ci yow bu baax Serigne Aliou Ndoye Baye Serigne baa ngi lay nuyu ñi ngi lay sant yow da ngaa jeex ci kër gi tàkk yow cana ba rek la ñor ca yow nag cana ba dina la fay. jërë ngeen jëf sëriñ Pape Abdoulaye Mboup bàyyi sëriñ baa ngi leen di nuyu sëriñ Makura sëriñ Mansour sëriñ Mohamed fa tabaarakallaahu fu canaba soxlaa luy kër gi la ma leen waxoon rek diina jee leen moom fer ngeen leen firndeel ngeen ko seen bàyyee suñ nekki woon nañuy jàll ca ginnaaw naan leen doxal leen man su ma leen gisee sama xol day féex ndax téye ndono xam ndono dafa baax téye yéen xam ngeen loolu téye leen loolu jërë ngeen jëf waaw. sëñ Njàmme sëriñ Njàmme ñu ngi lay sant ñu ngi lay sant gay wante sant gi. waaye nag sant gi. sëriñ Pape Mor décoré na la démb sëriñ Pape Mor Gueye la démb. tur wi mu la la ñun ñëpp la ko defal. yal na yàlla sàmm yal na yàlla sàmm la. lu xew ci diine ji lu xew ci diine ji. Baye Sëriñ Assane day wax Baye Sëriñ Assane day wax. su ma toogee ci su ma toogee ci jotaay. su njàmmee ñëwee déema. am na lu muy jubbanti am na leneen lu muy jubbanti. waaye Baye Talla Gueye. sa baay sa baay. loolu la doon def Pamor Gueye Male. loolu la doon na baax rek. jërë ngeen jëf ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm soxna Ayda Ñang day sama xarit. wax naa la ko ci suba maa ngi koy nuyu di ko ziyaar ak li mu jiite yëpp fi may tëje nag yàllaa ko wax ci alquran moo ngi ca xujuraat aaye aaye ak neuf aaye huit ak neuf ku fa dem di ko fa fekk pas cinq cent seize juróomu téeméeru xët bi ak fukk ak juróom benn ma walakin allah walakin allah ustaas lan la ci teg xababa ilaykum al imaana maam bamba loolu la fi bàyyi eh man li maam bamba eh, lan la fi ba xabbaba ilaykum al iman waaye yemu ci wa zayyanahu fi qulubikum waaye yemu ci wa karaha ilaykum al kufra wal fusuq wal isyan yemu ci ulaika hum arrasidun qadlan fadlan min allahi wa nicmatan wallahu alimun hakimun waaye jërëjëf waay yéen waa kër maam Ahmad Bamba yéen waa kër maam Ahmad Bamba seen baay lim suuxat ci yéen ak seen i sët ak ñi ko nom muy ngëm ak warma ci kër maam Amari Ndaak waaye yemu ci wa sayyanahu ilaykum ngëm googu ak barke bi defu ko melet ngeen di ko melee noo yéen da ko su ngeen sangoo rek mu dañ ma ne ngëm googu. nee ngëm googu. ak war ma ji. seen maam joxu leen ko. ngeen mileenoo ko. su ngeen sangoo mu dañ. déedéet da leen koo jox ngeen lekk ko mu nekk seen yaram ku ci gis nekk ci kër gi koo ko xool xam ni kii gaalu ma mari ndaag la leer gi ak wilaaya gi ak ndono gi mi ngi biir li koy yàq al kufru wan nifaaq wal isyaan nekkul ci yéen salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu Baye Omar sama nijaay Baye Omar Niang mi billahi ni may xoole Cheikh Jibril muy sama nijaay di sama kilifa di seriñ Serigne Mamadou Seck Roqaya li tax mu dem léegi ca xaarul lii dafa am ku wàññeeku ca kër ga ñu waroon koo rob ca Serigne Jibee ngi fi mook Serigne Ibrahima ñoo fa ne moo njabootu Serigne Ibrahima ñoo ngi nii ñoo yónnee kat bi Serigne Modou Seck ni mel ak sëriñ bi te ñëwul ci lii daa am dëj bu ko dab léegi xale bu fa accidenté ñu war koo rob moo tax mu dem yebal na léegi yónni na sëriñ Souleymane léegi mu yabal ma loolu kon na ñëpp xam ne looloo tax mu dem waaye bay Omar mii ma seedeel leen ni li tax baayam rawale woon ko cene ba andiwaat ko ma ni Baye Omar mii ni may xoole Baye Jibi mii di ko xoole Serigne Mot Seck di ko xoole Serigne Ibra ak sama nijaay yi billaahi bët boobu laa koy xoole Serigne Mor Biram mii ak professeur Male xam nañ ci dara ma seedeel leen ni ndonal kër am na ko mooy teey ak dal ak diine ak ngor ak xam li tax ñu jox la ko Baye Omar mi bi mu ganee fii àddina musta soppeek nii rek lañ ko xamee nii la sa baay bëggoon moo tax mu laq la cenab ba nga yor jikkoy cenab ndax xilaafa gi ki koy yor xilaaf ak cenaba la il faut nga am jikkoy cenaba ak pas-pasu cenaba ak ndonol cenaba looloo tax sa baay laq la fee doo la fi mbaa dégg ngeen wax bi sëñ aada dégg wax xalifa nee xalifa bu waa kër maam Bandañang sama nijaay sëñ Ablaay jërëjëf yàlla yàlla taxaw la yaa bëgg kër gi yaa taxawu kër gi yaa gëstu kër gi dex jeex ci tàkk ci suñuy maam ba ci suñu nijaay ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar kaddu yi la ñu bàyyi Assane yónni woon ni su ngeen demee ba ak waxal ci maqaamam kër gi ak ñi gëm kër gi ak ñi fa toog weddi wuñ seen maam ba nga fekk leen ci biir dal lépp lu ko fa waroon ci teraanga mu def ko ci baay ji bi du ci boolee wax du ci boole yëngatu baay ji bee ngi koy ñaanal mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maam Cheikh Ahmadou Bamba ñen ci jàngale moom nag mu nekk ca nekkal ca Baye Omar mii liggéey ci liggéey bu rëy. mbooloo euh, moomu nag ñoo jël ay décoration am na benn siyaara bu nekk fii ñu jox ko xalifa bi mooy Baye Omar Niang moom lañ ko décoré mooy wéral kàddu defoon ci wax bi léegi bi gi nag bilaal euh, kaamil alxuraan karim moom lañ jox rek mën nañ koo yor suuf comme wax nañ ko bu ko defee ñu dem pour gagner temps pour gagner tuuti temps. Euh, délégation Abdoulaye Issa Diop délégation Thierno Alassane Sall pare la ci journée bi ak séddale ki ko jiite mooy Abdoulaye Issa Diop ak Codé Nguur Guèye ak Ndeye Yacine Niang. ak Marème Sakho ak Mouda ñen ñoom ak seen si jotaay bi ñu ngi leen di dalal di leen tatagal loo xam ne dañ koy tàllal boo toogee ba solu liiru ci ñu jox ko fi Umar yëkkati kaamilu alquraanu karim jox ko Bamba Bilal moom mi nga xam ne moo yore woon kaamil yi ba ñu wàcc fi ñaari téeméeri kaamil ak fukk ak benn ñu def ko muy décoration groupe bi nag dafa am ñaari tànk yu muy doxe qaala Allahu qaala rasul groupe bi noonu lay doxe Mawlaa Cheikh Ahmadou Bamba noonu daan doxe bu toogee ci jàkka ji fajar ba wasifaam jeex mu ñëw jaaxal ca laram bu toogee huit heures njaw jëpp ñëw kenn pare ba néeg ba fee la muy jëkkee def ba nu xam suñu diine yar nañu ba fu ñu dem mën faa nekk yee nañu ba ku ñu jëflanteel mën a jëflanteel ak yow kon am na lu mu def tun loo xam ni fu nu demee dañuy yokk baa ñu dool yu war rek yar na yàlla yërëm ko fii mu tëdd juróom fukki at ak benn ci ren waajaloon na ko musuma gis ku ñemee deeri Mawlaay Cheikh Ahmadou Bamba musuma koo gis buy tëdd njàppale tëddee te day tëdd ñareet for ñaar loo xam ne ko tapp ci wetam yi ni bu ma dee ci guddi gi doggale bi yomb ku bàyyee xel ni dee bàyyee xel ni yàlla musuma gis ku mel ni moom ba ko ñaareel bàmmeelam bii fii ñu ko rob bàyyi biraan xule la ko dénkoon moo gas pax mi bant ba mu ko jox war na mat un mètre nekkoon na guddaay bi toll ni ci biir suuf kii moo ñu suuf waaye waaye kii moo ñemee fa mu jëm waaye xam nga lu mu ñemee jëfam lañu ñemee waaye yàlla kenn ñu te woon na koy boo gasee bàmmeel ba ba mat un mètre na nga xotti ca kanam ga nañ ma rof ca pax ma ca kanam ga ñu ñu suul ñu suul pax ma noonu la ñu defaroon rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sànq sëñ ngañ fekk naa ay waxtaanam fu rek waaye tey dafa xaar dafa jug rek dal ci leer bu Mawlaay Cheikh Ahmadou Bamba moom dafa jug rek dal ci leer ga mu fàttali ma soxna daba dem mu sëriñ Moodu Mareem Ñang matul ñaari weer mu wax ma ci sëñ Bamba lu ma kenn musul wax mu wax ma ci sëñ Bamba lu ma musul dégg fenn te bu ma paree dinaa ko laaj ku ko ma sa dégg na ma ko wax ba muy gàmmu Cenaba ca kër Mudu Marème ay néegi ñax moo fa yoon ca néegu ñax bañ ko daleel dabalee ma dikk toog ci ak moom man ak moom ak yàlla mu ne ko ba ma seetee sama turandoo Mawlaay Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba faral na fa ñetti guddi mu gént ci guddi yi maam amari jàpp ci ñaari baggam téye ko ba mu dëgër Mawlaay Cheikhul Xadim téye ci ñaari tànkam téye ko kenn ku ne di ko xëccoo nee na biñ ma xëccoo ñoom ñaar biñ ma biñ ma bifee rek nee na sama ndigg ne dana raq may may man faale ma ñëw may may may man ma ñëw may leen ma rek li ñu àggale li du bari ndax programme bi bari na dégg nga bi dama dem waxee loolu sama xel ni yeer ci Mawlaay Cheikh Ahmadou Bamba ñaari feebar la amoon bopp bi metti ak ndigg li metti ku toll ni ku toll ni ku toll ni guur gu mag ku toll ni maam Cheikh Ahmadou Bamba waaye ñaari ñi ku ñu xëccoo sëñ bi boo boo deewut borom karaama nga borom leer nga ndiggal loole nag moo ko mel ne tuture man li may wax mosuma fi wax kàddu juróom fukki at ak njëkk laay laaj ma si jël kàddu te lii may nekk li moo xam di wax nañ ma may ma àggale ko rek ndiggam loolu ci laa dara comprendre ni ndika góor gi diggam li fii la ko jëlee woon xam nga ko góor gu mag wax lu mu wax sëñ eh, ci biir gént yi daa ko dama doon xëccoo jaww Cheikh Bamba waaye tijaan bi jël na ko salaamaaleykum nga kar jaga Ahmadou Bamba ñang wa jasaaka Ahmadou Bamba ñang wa liilaayi muxaddamal xaadamu xal xulaayi Amadou Bamba ñagu wa jasaaka Amadou Bamba ñagu wa jasaaka def leen ni ñu màggal Amadou Bamba ñagu wa jasaaka Amadou Bamba ñagu wa jasaaka muxaddamal xaadimu xalxulaay yéen taasu leen ta tàccu maa fi saayire yàlla ma may ma saayire li saayire taaru na moom kenn tereetu koy tariixa ñi kontar ñépp ñëw nañuy sadiixa daar na te doorewul te booruwul ci diinay canaba booruwul amul morom fii ci canaba dina ko wax arab mu ànd ak ajami soo ko gisee antal xinaani xami sëriñ bamba sëriñ bamba sëriñ bamba alim la alaama yaa rafiw def na koy maqaama bamba su doonub xeex ma wax ni boom naa du beddi kenn biroowul wax ni ana alul muridiina bi seexi cane ba amul moroom nan di fii ci cane ba boobu woy nag sama baay moo ko woy maam bamba muy fukki woy ak ñaar mu dëppoo ak sama nijaay wax ndax Serigne Touba moo bind lam yab du mislal Moustapha Mohamed boo xoolee tarjumaan ja lam yaxlux mislahu muy fukki woy ak ñaar sama bàyyi way siñ bàmba ñang fukki woy ak ñaar dafa guddi toogaay bi yàgg waaye kon man la ma ca teg ca bi muy ne maam bàmba bi muy nelaw man fukki at ak laa way laa am fukki at ak ñett suñu amara dama ne maam bàmba bi muy nelaw fukki at ak ñett laa woy woyal ko woy woo xam ni fukki woy la ak ñett xaju fi ba déwén nag njabootu kër maam maa jooja ngir démb Famara mii taxawaayam ci tant bi su ko baat bi mayoon taxaw fii def ko waaye lii am tey di ndam di ndamal diine ji maa ngi waxaat sama nijaay Omar ni ko sama nijaay ji bu fi nekkoon dina kontaan waaye xoolal sedd na ndax ak njabootam yëpp bëgg na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñooñu lañu lim léegi accès nañu si délégation bi ki ñu yónnee pour mu jël kàddu Serigne Ngout Gaye mii la. nguut gay ñii ñooy ay kilifa te seen toogaay bi yàgg na kon nguut kàddu gi dama koy foqal ñi ci barke Baye Cheikh Ahmed Tidiane jox ko kilifa yi délégation Thierno Alassane Sall ñoom la représenté ñoom ñëw nañ ànd ak ah, Ablaye Isaac Diop moo ñëw ànd ak Codé Gaye nguut gay nguut gay ak Ndeye Yacine Niang ak Marème Sakho ak Nguuda Niang ñëw nañ teew nañ nguut la ñu yónnoon pour bu jël kàddu nguut kàddu gi foqal ñu naan ko jox ko Cheikh mbokki jullit yi El Hadj Omar Niang xalifa moom Cheikh Ahmad Bamba Niang asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Seydina mu jaar ci sëriñ Ngañ Saar suñu mag suñu jarbaat di porte paralu Baye Alxaaji Xasan xalif général de Thiénaba waaye nag mboolem nag ku sant Seck nee mu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di baalu xaq ñëpp di baalit ñëpp xaq gan ñi fi daje ak dëkk yi ak xarit yi ak wëllëre yi nee na mënu leen lim ñëpp waaye dañuy fab ñëpp dugal ko ci kàddu bàyyi sëriñ ba nee na moom waxal nañu ko te li ñu ko waxal doy na ko mooy sama njaboot mooy sama njaboot di samay doom di samay doom samay jarbaat di samay jarbaat di samay sët samay sët ñoom ñépp bokk genn kàddu bokk deret ji bokk deret ji mooy Cheikh Ahmad Bamba Niang radiyallahu mu nekkoon fi nag doon dund diine ak ngor dind diine ak ngor ci biir ay kilifaam ak ci biiri ak i dëkkandoo ci biir ay taalibeem ak i wëllëreem ci biiri taalibeem ak i wëllëreem waaye ci digganteem ak Serigne Thiénaba waaye nag ci digganteem ak Cheikhou Thiénaba nag loolu lañ doon dund noona loola lañ doon dund mu def ko ci njaboot gi mu def ko nag ci njaboot gi def ko ci mbooleem koo xamante ni moo def ko ci mboolem koo xam ni moo la jur góor ak jigéen mag ak ndaw jàpp naa ni ñi mu jur taaw ba caat moo leen yaral boppam def ci ñoom jikkoom muy ngor ak ragal yàlla ak diine ak bëgg yàlla bëgg rasulullahi bëgg seexu canaba bëggi bokkam mu jaraloon ko lu ne nag lu mu am ci diine rek lu mu am ci wërsëg bokk gi diine ji njaboot gi canaba def ko ci njabootam. nee na mu def ko nag ci njabootam nag. sëriñ ma dikk ma nekk xalifaam. sëriñ ma dikk mi jëkk a nekk xalifaam. kenn wut eh, werantewul. taxawaayam taxawaayam. ci diine ji ci diine ji. ak bokk gi ak canaba. Sëriñ Modou Marème Sëriñ Modou Marème kenn wérantewul taxawaayam ci diina ji ciy rakkam ciy bokkam ak cene ba sëriñ Bakary. sëriñ Bakary Ñang. kenn werantewul. kenn werantewul. taxawaayam. ci njaboot gi. ak cofeelam. ci njaboot gi. ak jëfam. ci njaboot gi. te noonee mu ko doon jëfe. noona la ko àndewoon ak rakkam. sëriñ Xuseynu Ñang. noo ngi ñaan. yal na yàlla mayal nu al aljanna. nee na moom xolam sedd na bu wér. nee na moom sant na yàlla bu wér nag. nee na ma seddal la ko yàlla sunu borom. nee na lu tax loolu. moom magam yu baax ya. nee na alxaaji mbay wax na ko sànq. kenn ku nekk ci ñoom. sedd sedd nga ma ci sa bopp. cër boo xam ni. mënuma leen koo fay xanaa sukk ci seen suuf rek di leen doxal jox sama nopp jox leen ñuy wax may dem di dikk te nee na dara masula yàqu sunu diggante nag ba ñu demee bàyyi nu fi ak njaboot gi dara yàquwul lu doon benn rek def na fukk wala téeméer sant naa it sama njaboot gii nag di seedeloo yàlla mi nga xam ni moom rek a jara seedeloo xolub Serigne Bamba xolub Cheikh Ahmad Bamba ñang ci Cenaba yéeneem ci ba ak bëggam ci Cenaba ak i bokkam ci diine ji dara jóge wu fi te bu fi jógee nag te du fi jóge ba kere nu koy fekki nag yàlla rek la na ko seedeel yàlla rek lañ seedeel sunu kaddu. yàlla rek lañuy seedeel sunu kaddu gi. nee na mu ngi sàkku ngeen ñaanal ko. ñaanalal ma njaboot gi. ni ñu bennoo. nañu bennoo. ni ñu bokke. li ñu bokk ñu bokk ko. ba lépp rafet. mu gën a jëm kanam. bi fi sëriñ Bëkkër jógee yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla may leen aljanna. yal na yàlla may leen aljanna. jotaay bi ma jëkk mu jëkk a toog fii. jotaay bi ma jëkk a toog fii. ma woon a toog ci photo yi. ñi ma woon a toog ci photo yi. di dend ak Baye Ass. kenn ku ne xam na ni. dañu maa forcé. ma ma door a toog ci kaw. ba nu àggee ci waxtaan Baye Ass dafa ma ba nu àggee ci wax ni. ñii wax lu demee ni kër gii wax lii ñu wax tey. ci kër gi ci kër gii. waa kër sëñ Madické. waa kër sëñ Madické. ak kër sëriñ Madické. ak kër sëriñ ma sëñ Omar. mu ne ma sëriñ Omar. kër yooyu ñuy wax lu doon. waa kër yooyu ñuy wax lan la. ma ni ko ma ni ko. kër gii ma jóge woon. kër gii ma jóge woon. ñëw Cenaba. ñëw Cenaba. moom laa bëgg a yeesalaat. moom laa bëgg a yeesalaat. di fi ñëw. di fi ñëw. sëñ Madické. sëñ Madické. kër gee ca Touba doon kër sëñ Bamba. njabootam juddoo fa. yaroo fa màgge fa ñu nekk fa dañoo bëgg fii kër ñoom itam kër ga nag am nañ ko ba noppi ñu bëgg koo defar insha allahu mu ni ma jox naa la ca ñetti toni ciment mu ni ma jox naa la ca ñetti toni ciment ana Hasan Hasan mi ma ni ko mu ni ko sëñ Omar mii jox naa ko ñetti toni ciment ci liggéeyam bii ñuy wax ci ak ci nag gàmm ya. ñuy wax ci nag gàmm ya. ak gëléem ya sama gëléem ga ndax dina ñëw. mu ne waaw ndax sama gëléem ga dina ñëw. ma ne ko na mu daan ñëwee. ma ne ko na mu daan ñëwee lay ñëwee. jàpp naa ne boobaag léegi ñetti at jàpp naa ne boobaag léegi ñetti at la. na ko sunu mag ju baax ji daan na ko sunu mag ju baax ji daan yóbboo. muy sëriñ bëkkëri muy sëriñ bëkkëri. ànd ak njaboot gi daa yokku waaye dara wàññikul te ñaanunu yàlla lenn di wàññi ko ci nun ba kër nuy fekki mag ñi nee na nag mu ngi sant njabootam gi di sant dëkk bi di sant taalibe yi di sant wëllëre yi di leen ñaanal yal na yàlla jàppale leen lu ma war a wax rek waxal nañu ma ko ñii ma doon waxal ba ci alhaaji Malick bu dee alhaaji Malick mooy coordinateur bi bu dee alhaaji Mbay mii mooy président bi soxna Ayda mooy présidente bi sëñ ma dikke moo leen di bindal soxna Ayda Ndegeni si biir la ñëw. ànd ak lu mat fukki nit ak nangam. ñu jàppale ko ci waaj wi. lépp sotti na lépp defaru na waaye du nun yàlla la ah, ak sëñ Bamba ñam ñu ngi koy ñaanal ba kër nu koy fekki. ñaanal sama mag yu baax yi ba keroog ma leen di fekki di ñaanal dëkkandoo yi di ñaanal xarit yi ñaanal wëllëre yi di ñaanal sama rakk yépp nag kenn ku ne foo war a taxaw rek. taxaw nga fa loo war a wax yaa ngi koy wax loo war a jëf yaa ngi koy jëf tool bii ma fi bay xalaatuma ko woon de ci xelum sëñ Isxaaqa mee la jóge jaar ca mbay soxna mi borom dëkk bi ñu waxtaane ko lépp di dox sëriñ ma dikke mee yaakaar naa ne li muy summi ku yor gopp bariwul de waaye ba ñu commencé njëma ba ca ndéqi ma ba ca njëri ma mook ñoom ba liggéey bi eggee ñoom ñépp dañu ma ni ba ngulle ba gàdd daaira ba ca gàdd ñoom ñépp ànd nañu lii nga béy dafa tuuti bu nu ko fekkeetee na nga wut jiw wu bari ndax yéene nañ la ko ndax yéene nañu la ko ay yàlla jubale na la ak njaboot gi waaye lu may def lu dul sant sunu borom sëriñ bi nee na mi ngi lay sant yaay sunu mag sëñ jibi yaay sunu kilifa diggante Seexna Seex Ahmad Bamba ak sëriñ Ibrahima Seck nee na fekkee nañu ci lu bari xam ci lu bari nag loo xam ni kenn waxunu ko sunu kenn waxunu ko. sunu ginaar lu nu fekkewul. ci lu nu fekkewul. dañ koy wax. dañu koy wax. nuy dégg muy jëf. nuy gis nuy gis. mën nañu ëpp wërsëg nag. nee na mën nañu noo ëpp wërsëg nag. ëpp nu maqaama ca yàlla. waaye ëpp nu yéene. ci canaba ak njaboot bi ak ci jullit yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. suñu doomu baay Mbacke Diagne ak ñeneen ñi mu àndal nee na yor teraanga ci bis bi nee na nga xam ni seen bis la nee na moo tax ñu teew ci ndigalal euh, monsieur le monsieur le président Idrissa Seck nee na voilà mu ngi noonu kon Serigne Djibril la àggale na kàddu yi mu nekk kàddu yi am solo waaw délégation bi. monsieur le ministre Yankoba Diatara monsieur le maire Daouda Tine professeur Mbacké Diagne Assane Niang Cheikh chef de cabinet Aminata ñu ñaanal suñu kilifa diine yi ñaanal suñu kilifa aada yi yàlla ñaan suñu réew yàlla yàlla def ci jàmm ak jubóo ci barke yonent bi sallallahu alayhi kon ñu tàllal loxo yi ñaan réew mi yàlla def ci jàmm ñu ñaan yàlla defal ñu sutura yàlla defal ñu wér ak wérle ci barke yonent bi amin ya rabbi amin amin la ilaha illa hu ay xewum la taaxusuhu sinatun wala nawmu lahu ما في السماوات وما في الارض من الذي يسال الا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا ينهض إفسه ولا سفاهين قل أن واصبر فالله من سير ما خلق ومن خاس إسا قبا ومن سير نفس صدق هاس إسا أسد الفارين قل أن واصبر بالناس ملك الناس إلينا من وسوق الناس الذي في آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق الناس العقل بالحق والهادي والهادي والهادي إلى سادك متقين